mbugal dañ koy wax rek waaye dañ cee jublu bu ko yàlla tegee lu metti mel ne balaa wala tawat wala ñàkk wala mu faatule yépp xeetu ñaqamatu la kon nag teggi ñi nga war a sàmm ci bu la yàlla tegee lu metti moo xam tawat la moo xam ak ñàkk la moo xam balaa la moo xam faatule la mooy nga daal di gaaw dellu ci yàlla xam ne lu mu def rekk moo gën nga daal di gaaw rafetal muñ ga te def ko fa saasay saasa ndax xeet ndax xeeti tiis yooyu bu lay door a dal lay gën a metti di wàññiku ndànk-ndànk kon nag bu lay door dal fi saasa rek nga war a sàmmoonteeg muñ bu baax ak rafetal sa njortu ci yàlla dangay xamal sa bakkan ne ko lii moom lu yàlla def la ba noppi mënuma ci dara te it yàlla mën na maa teg lu ko gën a metti lool lool ndax nee nañu yàlla lu mu la wan rek nëbb na la lu ko raw te it nga xamal sa bakkan ne ko boo salité itam li am am na ba noppi boo muñee nag te gërëm li yàlla dogal day mel ne yàlla mosulaa teg lu metti na nga rafetal sa njort bu baax a baax ci jàpp ne yàlla lu mu dogal ci yow rek donte xamoo ko it moo gën ci yow yàlla mi xam daal lum la taamul defal la ko rek jàppal ni moo gën ci yow ndax moom ci boppam wax na ci hadis xuddus yi ne sama jaam ñi am na ci ñoo xam ne lañu bëgg ci jaamu yàlla su ma leen ko mayoon faaw rek ñu gis seen bopp te kon buñ gisee seen bopp daal di yàqule moo tax lu mu leen may lañ bëgg ci jaamu yàlla am na ci sama jaam ñi ñoo xam ne it am rekk mooy tax ñu aw ci yoon su ma leen tegoonu ñàkk rek ñu yàqule moo tax ñooñu ma leen di jox ba ñu barile am na ci ñoo xam ne it su ma leen joxoon ba ñu barile ñu jaare ca yàqule loolu moo tax ma leen di teg ñàkk inna min ibaadi man yasaluni albaaba min al ibaada fa amnahu minhu li allaa yadxulahu alxujbu bi fa yufsidahu dalik wa inna min ibaadi almuminin man laa yasluhu illa bilgina walaw afqartuhu la afsadahu dalik kon jaam bu ne yàllaa xam lay baaxal mbiram rekk am na ñoo xam ne am mooy baaxal seen mbir am na ñoo xam ne safaan ba ñàkk mooy baaxal seen mbir am na ñoo xam ne tawat mooy defar seen mbir am na ñoo xam ne wér moo koy defar am na ñoo xam ne jàmm ak xéewal mooy defar seen mbir am na ñoo xam ne balaa ak musiba la muy metti metti mooy tax ñu am la ñu bëgg kon la hadiis ba waxal ne man daal mbirum ku gëm yàlla yéem na ma ndax moom li yàllay indi muy mbégte wala muy tiis lu ci ñëw ci moom rek mu yóbbaale ca xéewal ndax buñ ko joxee jàmm ak mbégte mu sant buñ ko tegee tiis ak lor mu muñ te lu ci mën doon rek xéewal la ci moom la la yàlla teg nag lu mu diis diis bu mu tax nga tuumaal sa boroom jàpp ne dalaa bañ daa bëggul la naqari moo tax mu teg la loola na la wóor ne sa ndey sa baay lañu lay ñewante ñewante ni la yàlla ñewantee ko raw na nga ni sax yow ci sa bopp li ngay yërëm yërëm sa bopp ak li ngay ñewante ñewante sa bopp ni la yàlla yërëme ak nim la ñëwantee moo ko raw ba addis ba wax ne allahu arhamu bi abdihi min al walidati ashafiqati bi waladiha waajur wu jigéen na muy ñëwantee doom ja ni yàlla yërëme ab jaamam moo ko raw te boo seetloo gis ne sa waajur li mu lay yërëm yërëm mën naa nga bëgg xeetu ñam sàngam mu aaye la ko mbaa loo bëgg naan mu aaye la ko te fekk sa jàmm rek la ci jublu xam ne loolee baaxul ci yow gis nga it boo tolloo ci ñu war laa yar mu yóbbu la fu ñu lay yare la yar bay metti metti ndax rek bu ëllëgee nga baax gis nga docteur sax ni muy xottee yaramu nit mel na ku néeg mel na ku soxor te fekk na moom daa seet la cay mujj muy wér ak jàmm ci coobare yàlla rek kon nag na la wóor ne yàlla sa boroom daal lay baaxal sa mbir rek faw moom lay jublu di la ko defal kon nag ñaaw na lool nga di ko tuumaal ñaaw njort ci moom jàpp ne daa soxor rek jàppal rek ne lam la def mooy yéwénal sa mbir da ngay ñaan sa borom kay mu teggil la tiis wam la teg te tegal la ca jàmm joo xam ne day sax da nga boole ci jàmm ja ak cant baatub alxaafiyatu jàmm nag moom nee nañu ëmb na lépp lépp ndax mooy sa yaram nga bañ caa gisati dara loo cay sikk lu la cay naqari sa diine ak sa àdduna it ak sa alaaxira noonu loolu mooy jàmm ju matale bu addis ba ne salullaha alxaafiyata fama ontiya ahadun afdala min alxaafiyati ilal yaqin ñaan leen yàlla rek jàmm ndax mayuñu ab jaam lu gën jàmm lu may nag yaqiin wóolu yaqiin mooy jàmmi xol te xam nga jàmmi xol moo ëpp jàmmi yaram bu xol bi amatul benn sikki sàkk ci digganteem ak boroomam loolu mooy jàmmi xol bi moom nag moo féete kaw ci xeeti jàmm yi alxasan nee na alxayru alladi la charra fihi alxaafiyatu maxa shukri fakam min munaamin alayhi xayri shakir xasan nee na yi yi nga xam ne daal dara ci xeetu ay nekku ca mooy rek am jàmm te sant boole ca ndax baraana it ku ñu xéewal jàmm jooju te taxul mu sant te yàlla bu la mayee boo ko santut mu nangu ko te ba wattuwut jotaat ca dana jafe nee nañ aliyu daa mas ne yàlla may ma ma muñ yonent bi ne ko déet yow kat dangaa ñaan balaa ndax muñ moom li ci ëpp ci balaa rek lañ koy defee waxal ne kay yàlla may ma jàmm nee nañu alxabaas daa wax ne yonent bi ne ko jàngal ma ñaan goo xam ne dama koy ñaane yonent bi ne ko salillaahal aafiyata ñaanal yàlla jàmm abbas baa ma ko ay yooni yoon ne ko waa ji wax ma ñaan gu may ñaane mu ne ko abbas salillaaha alxaafiyata fi diini wa duniya wal axira fa innaka ida utita alxaafiyata utita kulla xayr mu ne ko daal ñaanal yàlla jàmmal la ci sa diine ak ci sa adduna ak ci sa alaxira ndax bu la yàlla mayee jàmm ju mel noonu moom may na la wépp yiw nee nañu am na waa ju baax ju daa wax yàlla naa ko su fekkee daa am ñoo xam ne danga leen a àggale ci daraja ju kawe kawe ci kaw balaa boo leen teg man de maa ngi lay ñaan nga àggale ma ci daraja joojee te àggale ma ca ci jàmm rek nee nañu ku nekk ab jullit bu wér te aw yaramam itam wér kon boole na sangub xéewaluk àdduna ak sangub xéewaluk alaxira sangub xéewaluk àdduna mooy jàmm sangub xéewali alaxira mooy yóbbaale fa lislaam ku ñuy wax albannaan yi nee na jàmm day fukki xaaj la juróom-ñeent yépp nag mi ngi nekk ci noppi te soo làmmiñ ci lu amul tuyaaba ba ca des mooy daw nit ñi mooy di moytoo jaxasoo ñoom jaxasoo bu amul tuyaaba mu ne it jaamu yàlla mees na koo xaaj fukki xaaj waaye juróom-ñeent yépp mi ngi nekk ci sàkku lu lew fexe ba looy jëfandikoo rek muy lu lew benn ba ca des nag door a doon jaamu yàlla alaafiyatu xasharatu ajza tishatun minha fi sumt wa waxidatun fi lfiraari min annaas wal xibaadatu xasharatu ajza tishatun minha fi talabil xalaal wal waxidatu hiya al ibadatu am na addis bu ne maa su ilallahu shay'an ahaba ilayhi min an yusala alxaafiyata yàlla daal loo ko mën di ñaan nga ñaan ko may la jàmm moo ko ko gënal yàlla daa xam jàmm fa mu toll ba loo ko ñaan lu ne rek nga ñaanan ko jàmm moo koy gënal ñaanal yàlla teggil la tiis wi wuutalal la jàmm ju sax ci sa diine ci sa àdduna ba ca sa alaxira lu mu dogal rek itam na ci sa xol sedd ndax ab jaam moom daa war a nangu dogalut boroomam lala yàlla teg nag bu fekkee mënees na caa sabablu lu ko teggi kon nga sabablu ca te wéeru ci yàlla niki bu dee tawat ngay wut ay garab yoo xam ne yaakaar nañ ne mën na koo faj bu dee ñàkk ngay dugg ci bunt yoo xam ne yaakaar nañ ne mënees na caa amee waaye nag bul jàmbat mukk mbindeef nga gëm yàlla te yaakaar ko rek te xam ne yàlla moo la teg lii moom moo ko mën a teggi su fekkee juum nga ba jàmbat mbindeef itam njàmbat lu aay kon na nga dellu tuubali yàlla te moytu koo defati jàmbat bi nga xam ne moom ayut mooy wax mbindeef sa soxla te teewul nga gëm ne yàlla ci boppam mooy sottal nga xam ne su mbir ma sottee nga sant yàlla santaale ko bu sotti wutit nga gërëm yàlla te doo ko xarab moom mbindeef ma ndax dañu xam ne rek yàllaa ko dogalut mu ne itam dee seetluwaale ne li la yàlla teg muy metti nga di ko diis lu kat ab jaam lu ko dal rek moo def la tax yàlla teg ko ko ñàkkul gàttañ lu gum gàttañ lu ci lu war a def bañ koo def mbaa gàttañ lu ci lu wartoon a def te def ko ndax su boroom nee na wa ma asaabakum min musibatin bima kasabat aydikum wa yaafu xan kathir lu leen dal ci xeeti musiba yi rek yéen a ko fàggu ci seeni loxo te sax yàlla da leen di jéggal bañ leen a toppee yu baree bare bu leen doon topp ci yëpp yëpp ay wa gën a metti ku yàlla teg nag nattu te fekkul nag mu def benn bàkkaar nag kon loola da caa bëgg a yëkkati ay dara jaam moo tax mu teg ko loola li waxoon léegi ne ku yàlla teg ab nattu rek moo def bàkkaar ba ko waral neen looloo tax waroom doole yi ragalul yàlla bu ñu dalee ci sunu kaw ñu leen di xasaka ŋàññ booba moo ngi leen di tooñ ndax nun noo def la tax yàlla xabtal waroom doole yooyu ba ñu dal ci sunu kaw ku yàlla dogal rek borom doole dal ci kawam def ko lu ko naqari na xam ni moom ci boppam moo def bakkaar yàlla xabtal nag borom doole joojee mu dal ci kawam ndax bakkaar ba mu def kon nag moom bu deewal bëtigu di ŋàññ ko xas borom doole joojee ma ngi koy tooñ ndax ci baatin borom doole ja deful dara yàllaa def jaam bi la ko dal te moom jaam bi moo fàggu la tax yàlla def ko loolee ba tey looloo tax gaa yi xam dëgg-dëgg ñoom bu leen yàlla tegee aw tiis ak mbugal dañuy sant te xam ne saahir si rek mooy mbugal waaye ci biir bi moom xéewal dong la ndax benn ñu def ci bàkkaar lu waral loola yàlla bëgg leen a teggil loolee ñu defoon ci bàkkaar mu wàcc leen wala boog defuñu bàkkaar yàlla teg leen loolee ngir yokk seen daraja ak seeni xéewal loolu moo tax ñoom ku ci masa am aw tiis ak mbugal rek ngay jàpp ne saahir si moo nekk mbugal ak tiis waaye ci dëgg-dëgg xéewal laak yërmaande lépp luy far bakkaar yi jaam bi yëkkati dara jaam rek loolu xéewal la doonte sax ca nañ ko gisee ci bitti moom ay tartar la ay coono la te yàlla moom du def dara ngir fo lu mu def rek ñàkkul xikma bu ca nekk kon jaam bi fu mu toll daa war a rafet njot rek ci boroomam balaa bu mu gis xam ne aw yiw ma nga ca biir mu sant yàlla bul yàlla tegee ab nattu daal sant dong moo ci war ndax nattu ba lu mu réy réy mënoon na laa teg bu ko ëpp ndax yàlla dooleem yemul fenn bu fekkee ne itam musiba ma day ci sa wàllu àdduna nga war a gën a santati ndax bu doon ci sa wàllu diine lay gën a diis ndax diine mooy la ñu dundi ëllëg ca alaxira moo tax xiisa alayhi salaam nee nañ daana wax ne allahuma laa tajxal musibat yi fii diini yi yàlla ba may teg musiba bu mu doon ci sama diine nee nañu am na ku waxan sëxlu ne ko ab sàcc daa dugg sama néeg jël saayu bagaas ne ko santal yàlla bu seedaan duggoon ci sa xol yàq sa tawxiit looy def te it nee nañu jaam bi bu seetloo na mu gàttañloo digganteem ak boroomam ak na mu ñaawe ay teggiin lu ko yàlla teg rek daa war a sant te xam ne lu ëpp ëpp lool la ko waroon teg yërmandee ma waaye kon lu ëpp ëpp lool la koy teg ndax ku ñu war a dóor téeméer yar yem ci dóor la fukk rek danga war a sant ba tey la la yàlla teg lu mu diis diis war ngaa sant yàlla bu baax ndax bu la tegee tiis ak nattu rek awale na la ci fam daa awale ay xeejam mu yonante ak waliyu ya ndax addis ba dane ashaddu naasi balaa an al ambiyaau tumal awliyaa tumal amtal fal amtal wa man kaana ilallahi taala aqrab fal masaibu lahu fi dunya akthar wal balaau alayhi ashad mu ne àdduna ñi ci gën a metti balaa mooy yonante yi buñ jàllee wàll yi bu wàll yi jàllee ku gën gën a metti nattu ga gënaat topp ca ñu ëppalante nattu noonu nga xam ne ku gën a jege yàlla rek yaay ëppale ay musiba ci àdduna yaay gën a mettali balaa itam ci àdduna kon ku yàlla teg balaa ku mën di doon rek bu mu jàpp ne dafa doye di fa yàlla yàlla da ko fonkut moo tax mu teg ko balaa boobee ndax jaam bu ne kem na diineem dëgëre rek la ab nattoom di tollu ku ñu wax annawawi nee na woon laysa bi aalimin man lam yahudda al balaa niama wa raxaa musiba koo xam ne àggul ci ba ko yàlla xéewalee mu jàpp ne xéewal gi am nattu la bu ko yàlla tegee musiba mu jàpp ne xéewal la ku àggul foofu rek ca dëgg-dëgg xamul dëgg-dëgg ba tey it nee na war ngaa sant yàlla bu baax bu la tegee ay mbugal ki tiis ndax ndax bu dee bàkkaar boo defoon mu teg la tiis wi ndax bàkkaar ba wàcc la xéwal gu rëy la ndax mënoon na koo xaare alaaxira te mbugalu àdduna moo gën a woyof lool mbugalu alaaxira ndax tiisi àdduna moom lu mu gën di yàgg mel ne nga di ko gën a mën a dékku mbugalu àdduna luy tax nga miis ko fàtte ko day yomb te nee nañu mbugalu alaxira la muy diis diis yàlla du may jàmba luy tax mu miis mbugal ga kon mbugalu alaxira ak mbugalu àdduna sore na lool boo jàddee yoon nag bu yàlla teg la nattu ndax bu ëllëgee nga bañ a am diis diisu alaxira war ngaa sant lool bu la bëggalee daraja ëllëg ci alaxira ba tax mu teg lay tiisit nga war a gën a santati hadis ba nee na ida araada allahu bi xabdin xayran xajjala lahu xuqubatahu fi dunia bu yàlla namee ci jaamam aw yiw lam ko war a teg ci mbugal da koy teg ci àdduna du ko xaare alaxira bu naree ci moom safaar ba nag day xaare ak mbugalam ba foofa ci alaxira foo toll rek na nga def yett yi muy sa màndarga muy sa njiitlaay mooy alhamdulillah astaghfirullah la hawla wala quwwata illa billah bari la jéggulu yàlla baril koo sant bari la dellu ci moom it xamal ko ne ko man awma pexe awma kàttan yow rek yaa am pexe yaa am kàttan defal ma koo defal ba sax ci la nga gërëm te sori la nga gërëmut waaye nag bu dee ci waxtu woo toll ci yàlla defal la xéewal ak ak topp yàlla da ngay jiital alhamdu ji lool cee teg astaghfirullah ak la hawla wala quwwata illa billah su dee da ngaa toll nag ci ak mooy wala ci tiis nag nga jiital jéggalu gi di jëkk wax astaghfirullah door cee teg alhamdulillah mujje la hawla wala quwwata illa billah baatub ashihaar day firi màndarga màndarga ma nga xam ne moom la ñuy xàmmee ñooña buñ ko waxee rek ñu xam ne ñoom la ñuy wax mel ne mooy la ñuy bàkkoo mooy la ñuy xàmmikoo seen bopp daal loola mooy ashihaar day firi nag ba tey njiitlaay la ñuy sol te jiitloo ko soo dogoo ci taxaw ci ak ci sa boroom kem sa kàttan da ngay jëm ci sa boroom ñaan ko mu dimbali la ca nga bañ a geesu sag doye di ak sag matadi ak sa ak sag néew doole te xam ne yàlla moom bu la dimbalee rek téeñal la yanu daal di yomb nga wax sa boroom ne ko suñu boroom man dey soo ma fàttaliwul ma fàtte soo ma mayul kàttan ma lottu tële soo ma mayul ak muñ faaw danaa saalit bu def noonu rek delloo mbiram yépp ci yàlla bu ko yàlla dimbalee rek lu dara jafe-jafe day mel ne moo gën a yomb